Ndiaye ma Siré d' abord dama leen di nuyu yéen ñi ma fi fekk yéen site internet yëpp di leen jaajëfal sama càmmeñ la sama xarit la nit ku baax di nit ku bëri valeur di taalibe Cheikh comme man nekk nit ku am jom prouvé nag ci réew mi macha allah wootewul benn bis ñaanu maamam bi rek lay woote bu jotee ci lay woo xale yëpp génn ñu fekk ko kër yaayam mu dressé defar ba mu baax ñu ciy ànd ak moom moom lu mu ne dañ ciy ànd ak moom parce que nit ku valeur la nit ku baax la nit ku qualité la nit ku am jom la. nangoo liggéey la jeune la bu nekk fii ci réew mi di bay waaram am jom lool gëm boppam xam mooy kan am personnalité fonk doomu aadama te yàlla nee na lépp lu ma lépp lu ma wàcce ci suuf doomu aadama moo ci féete kaw lépp mu fonk doomu aadama am yar am respect nekk taalibe Cheikh baax nag lool di sama góor bëgg ma ba àdduna bi yëpp xam ko moo tax tey ma def déplacement ak dérangement fekk ko fi mu nekk nee naa ko boo nekkoon fu raw fii sax ma fekk la fa parce que nit ku baax sama relation ak moom macha allah taalibe Cheikh la may taalibe Cheikh Serigne Babacar moo ñu boole muy sama góor di ma fekk sama kër di ma seet di fa fekk sama jëkkër di fa fekk sama famille yëpp ñëpp xam ko ak man mu nekk nit ku baax koo xam ne bu ay produit am fii ci réew mi man Sali Babel lay seet si man maa koy publi man maa koy publier partagé ko defal ko ci ay vidéo yoo xam ne macha allah bu génnee ñëpp jënd ko mu baax loolu fonk ma man it ma fonk ko. ok. Euh, tey gis vraiment. ay nitam jógee fu nekk mhm. mhm. parce que nit ñi ken moomu leen. te nit euh, bala ngay ànd ak kenn da ànd ak say mbokk. li mu am tey ci réew mi bëgg ndayam ak fonk ndayam ak fonk boppam. bu ko neexoon fi mu nekk nii fi ñu ko fekk sori na bu ko neexoon mu dem luyee ji kër wala mu jël beneen endroit ker xool lu mu fa créé wala xool fa def waaye Mbaye Ndiaye kenn dégg ko ci dara. benn événement la am ci àddina muy weeru koor maamam bi nga xam ne moo ko yar su gaañoo mu koy ñaanal day ñëw fii kër yaayam lu mu sori sori nit ñi dañ ko fi fekk parce que séq na ak nit ñi relation boo xamante ne nii fu mu nekk ñu fekk ko fa ma koy encouragé di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal sutura di ko ñaanal li mu yàgg a ñaanal maamam yàlla na ko def ba ay sëtam di ko def ci darajay Seydina Mouhamed. waaw ñu ñëw ci

nekkaluma fi sama bopp nekkalu ma fi keneen man xooluma nekkuma influenceuse boo xam damay xëy ne kii laa faral wala kii laa àndal man ku jeunesse bi tànn kooku laa tànn parce que ndaw réew mi ñoo ma tax a jóg te ndaw réew mi laa àndal te ku jàppale ndaw mi ak ku dig ndaw mi ne bu ma toogee réew mi dina neex dina jàppale ndaw yi kooku laay mën a àndal dañu koy ñaanal yàlla defal ko jàmm macha allah mu jàppale ndaw yi jàppale jeunesse bi xale yi liggéey yombal lépp wàññi dund bi courant yi cher na ndox yi cher na loyer cher na Sénégal metti na loolu la ñuy xaar ci moom. mais gars yi slogan bi ñu génne léegi muy Macky mooy Diomaye Sonko mooy Macky ndax loolu dal na sa xel. comprendre ma Sonko mooy. Sonko mooy Macky mooy Diomaye. ndax loolu dal na sa xel ndax loolu aussi tamit mënuñ ko déggee ni régime bi fi toogoon moo fi toogaat. non non c'est pas ça parce que sénégalais ku ne xam na ne dañoo mën a wax lu ñëw ak niñ koy gisee ak niñ ciy waxee waaye régime bi du bay na nee naa la Diomaye xale la. te bu ko jappalé incha allahu rabbi liñu bëgg ci suñu réew dina metti fi ak 1 mois 2 mois 3 mois day metti parce que day toog a toog day défarat mais bu togué incha allahu rabbi buñu ko jappalé dina liggéey te yaakar naa ni bu liggéeyee ñun ndaw ñi dinañ ci gis seen bop parce que man nekkal ma fi jomaa nekkal ma fi mag nekkal ma fi kenn jeunesse bi la fi nekkal bu àndeeg jeunesse bi appelez jeunesse bi ma ak ku ak jeunesse bi appelez jeunesse bi duma ci parce que jeunesse bi man Saliba bel, ci en tant que ndaw sama liguey di bay sama war di les jeunesse bi di wax toujours li nga xamantene ne mom la nit ñi di joy muy mar rafle mo fi am fi ok ñu ñëwaat ci beneen actualité Sally nga nekk influenceuse boo xam ne ñëpp ràññee nañ la sa liggéey. Mhm. am nga doole ci TikTok bi am doole ci Snapchat bi. Mhm. yaa ngi béy sa waar di gagné ay euh, di gagné ay marché comme ñeneen ñi duñ koy defee. Mhm. Euh, gis nañu yàqante bi am ci TikTok bi. influenceuse yi mun nañ tudd seen tur du ma ne sax ay influenceuse lañ ay jaaykatu diw lañu kii jaaykatu euh, yére la Mame sa Savon ak Mamy Cobra ñuy waxante ay wax yu rëy ndax loolu jëkk na ci seen image yéen ñi nga xam ne. yéen a ngi nekk ci milieu bi. non non image yi du benn te nit ñi duñu benn ñoom ay ndaw lañ yu war a bay seen waar seytaane ñëw coow am mami Cobra sama rak la maam njaay Savon sama rak la daf maa bëgg ñoom ñëpp dañ maa bëgg ñu nekk ay ndaw yoo xam ne ñi ngi ci réew mi li ñuy def nit ñi bëgg nañ ko te du ñàkk ba pare cat du wees mais lii du dara passé nañu ko teg nañ leen wax ak ñoom dootul amati te kenn dootu ci jëlee leçon te yaakaar naa ne kenn dootu ko defati parce que lu baaxul baaxul lu rafetul rafetul. dafa am yoo xamante ne nii munul ñàkk cat la mais bu paasee rek après mooy loolu. waroon conseil boo leen di jox ñu fa ñu muy Mame Ndiaye coow aussi tamit ñëpp xamee aussi. non non muy Mame Ndiaye di mami coow amul sens munul yóbbu nit fenn. coow munul yóbbu nit fenn li ngay liggéey baax na nit ñi bëgg nañ la da ngay focus ci loolu nga liggéey am yar am respect ci doomu aadama yi parce que internet bi doomu aadama yi ñoo ci nekk. te macha allah am na ñu leen fi jiitu woon ne ci internet bi di def comme yi ñuy def waaye mosuñu defee genre bi te macha allah sant nañ yàlla am nañ ci lu ne ba dépassé fii te ñoom dañ leen di ñaana li ñu bëgg seen liggéey ñu am ko maam sama rak la jàmbaar la liggéeykat la mami Cobra aussi pareil liggéeykat la ñoom ñaar ñëpp ay xale la ñu nekk ay ndaw njuumte mënul ñàkk nee naa la cat du wees lii cat kese la. Salibawel am tur ñëpp ràññee ko musul dàggasante musul defante ñu toll ci milieu defante pour si na loolu gis nga ne image bu rafet la pour suñu réew waaw parce que man dàggasante ak euh, waxante lu ñaaw taxul ma siiw parce que man Salibawel bi may écarté taxaw di wax lu baax ci réew mi kenn ñemewu ko fii ci Sénégal bu ma ko daan def dañuy wax naan kii est-ce que wér na kii day wayaan wala kii lu muy wax nii waaye tey ñëpp gis nañ Salibawel gis nañ ñeneen li ma ko may nag mooy personnalité ak dignité su ma waree boy max wax May Njaay lu baax dama koy wax lii sama rôle ak moom dama koy doxal ba mu jeex waaye problème bi mooy personnalité ak ñu dignité lu ko waay jëndee jar na ko te nit booy wax dangay wax lu am sens xàññu ma kenn waxuma kenn dara ku nekk li nga nekk di ci gis sa bopp gën koo rafetal te gën koo cadré ba mu cadré wu man loolu laa gis. mais bi nga taxawee ak Soumboulou gis nañu ne kooku sama géer la yàlla boole nañu loolu yàgg na magam bi sama xarit problème am na. problème amna problème amna bu jexé jexna lolu dépassé nako passé nako dotuma ci waxati. mais ci grandeur Sali Babel ñu xamné Sali Babel xam nañ ko ci milieu bi ndax mom waron na juger nit ci walu série wala autant plus mu ko juger ci walu ci personnage. chéri lolu waxna ci ba pare te bima ci waxé sénégalais yëpp dégg na man may Sali Babel may birima ma ca benn baat ba mo waxé ren bala muy waxaat déwén lolu passé nako ci lenen lay nekkat instant bi waaw. Wadilin di leen remercier site internet di, parce que kenn gënu leen yéen ci di bay seen war am jom nek ay ndaw yor seen ay téléphone yor seen ay micro di dugg ci ruq-ruqaat yi macha di liggéey yàlla na leen yàlla defal jàmm te état na leen gestu yéen ñi nga xamante ni ci internet di liggéey Pas que boo leen amoon loo leen gënal da ngeen di am seen ay télé wala ngeen gën yaatal seen liggéey te ku leen jàppale di dem Pas que bëri na lu nit di gis guddi yuñ toll ni yéen yéen li nit du gis bu duñ tool nii yéen site internet yéen koy wane donc kon yow xam nga lu ma leen di wax ah mooy yàlla defal leen jàmm état tamit bu toogee ba pare ba peser na leen gestu xool leen parce que tamit ay ndaw ngeen nekk ci réew mi am fi part de te am fi ay jabar am fi ay doom am fi ay famille toujours yéen a ngi fépp te macha allah rafetal rafetlu naa seen liggéey torop. Mhm. Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal.